teguñu ko ci yoon. xam nga yaa ngi wax sànq 105 milliards de francs CFA. Mhm. moom la ñu def ci fonds force Covid 19 jagleel ko ministère de la santé. Mhm. maanaam dañu ne woon au départ. Mhm. dañu jox ministère de la santé milliards millions. ñu dem yokku ci loo xamante ne daanaka sax dafa jéggi dayoo. mais ñu jàpp ne c'est normal parce que dañu ne dañu nekk ci guerre sanitaire. dafa am mbas moo xamante ne bàyyiwul benn réew. ñëw ci réew moo xamante ne dafa nekk ci yoonu suqali ko am jafe-jafe. ñu def koppar boobu ñëpp tàcc. te bi ñu koy def man bi ma dégloo le fonds force Covid 19 bi nga xamante ne général Ndiaye bi nga xam ne mi ngi doon communiquer ci li ñu def. ci mbas bi mu fi duggee ba le 31 mars 2021 dañu wax ne bokk na ci fexe ba li nga xam ne moom mooy centre d'accueil capacité d'accueil bi maanaam ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy dal li ñu amee matuwaay jumtuwaay waaye kuy wax moyen wax ñi nga xam ne mooy moyens humains ñi nga xam ne ñoom ñooy taxaw nekk tey les premier ci xeex bi taxaw feebar mën leen a dal ñu wax ne liñ ci limoon ci ñi nga xam ne feer bi dal na leen kenn xamul luñ toll buñ sukkandikoo ci SAMES mi nga xamante ne moom moo bootoon ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu wér gu yaram mais également ñooñu ne dañ leen a ñu nekk ci centre capacité ñi nga xamante ne ñoom ñooy feebar lu ñëw ci ñoom lay dal ñooñu dama foog ne dañu leen waroon a outiller mm-hmm. yamuñu rek ci outiller leen aar leen mais fay leen seen ay koppar cest dire que nit mënoo génnee budget bu toll ci 105 milliards ñu jox la ko ne la mbas mi moom moo tax ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw tey ci mbas mi xeex ci dugal ci seen loxo ñuy wax ne amee nañu fii euh, tant de millions amee nañu fii tant de millions amee nañu hôpital bi tant de millions muy jafe-jafe boo xam ne suñu secteur de la santé boo koy tudd sax day mel ne da ngay critiquer tout le temps alors que loolu moom moo am ñun dañu am jafe-jafe ci suñu secteur de la santé day xadi secteur de la santé boo xam ne dañu lay wax waa SUTSAS ne amee na bor boo xamante ne lu toll ci 11 milliards de francs CFA dette hospitalière ne war nañu ko war nañu ko fay mm-hmm. capacité problème am problème bloc opératoire am problème mu lal salle yi nga xamante ne tey moo ne war nekk salle d'hospitalisation da ngay dem ci ay hôpitaux yoo xam ne dañu koy soppi def ko ay bureau ndax amuñu ay matuwaay. jumtuwaay urgence yi musiba la. accueil formation ak ci ñi nga xamante ne ñoo waa kër docteur déjà loolu problème la également ci ñoom ci seen wàll muy secteur boo xam ne da nga naan mag la moo xamante ne foo laal dafay metti mu am jafe-jafe ki nga xam ne nag mi ngi doon tey ci samp ndëndam loolu peut-être beneen wàll ci politique am la mais dafa jiite loo xam ne dafa am solo ci réew muy santé nga xam ne vitrine la ci dëkk moom ak njàng ñoom ñooyam ak justice tey dafa war a nekk loo xam ne tey Sénégal daf ko war a damoo mais Sénégal waru xalaat bu feebaree ay doom dem bi ci réew di faji ñi nga xam ne ñoo fi faj ñu war a bu ba pare seen xol war a ci salaire bi ñuy jot wala ndàmpaay ñuy am jafe-jafe ba tey ñuy jeex seen contrat li Mansour wax laaj ñu renouvellement ci seen contrat mais li ñu leen amel nañu leen ko fay loolu je pense que war nañu ko dépasser ci jamono joo xamante ne ñi ngi wax waxi omicron te kenn ñaanu yàlla mu ñëwaat ci Sénégal indi wat ci jëye joo xam ne delta bi indi woon ko ñu wax ci lu jëm ci liggéeykatu post yi nga xam ne nag ñoom la ñuy sàkk moom moo di kii di seen directeur général ñu tekki ndombal tànkam ndaxte kat jàpp nañ ñi moom moo daal di woon dàq nag ki nekkoon directeur poste finance ginnaaw ba kooku gisee ne am na ay njuñ njaaj yu ñu nemeeku ci biir koppar yi ba tax na nag ñoom ñu ngi sàkku ci njiitu réew mi mu daal di ci gaaw nag indi saafara lu ko mer euh, seen bërëb boobu seen bërëbu liggéeykaay boobu dina daal di ndërmeelu dañ ci ànd ak euh, Tidiane Diallo. ginnaaw scandale bu am ca poste liggéeykat yi dañoo mer lool ci kilifa yi. directeur général poste muy Abdoulaye Bibi Baldé li nga xam ne xew na ci kër gi muy ay déficit. xam ni gis nañu ko ci yenn pàcc yoo xam ne xew na ci structure bi te ki nga xam ne moo ko gis muy directeur général poste finance ginnaaw buñ fa yónnee ay corps de contrôle ñu dem gis ni kat. ay luuxóor am na ci kër gi mu porté plainte ginnaaw bi ma ko waxee conseil d' administration conseil d' administration boobu noonu félicité ko encouragé ko à continuer la procédure. nekk na situation bu doy waax ba tax na syndicaliste ñu ngi interpellé njiitu réew mi. nga xam ni moom moo am ba des lii nga xam ne bëgg na ko jàllale muy forfeture bi liggéeykat yi dinañu taxaw te loolu du am blocage nag bi mu andi day interpeller responsabilité état bi nañu taxaw siffler la fin de la récréation parce que postiers yi mérité lii. ñoom ñi la ñu ngi sàkku ñu jëlee fi directeur bi ndax gestion bi baaxul dara. ñu wax ci lu jëm ci wàllu amande yi nga xamante ne ARTP daal dina ko rek jëbbal ñii di opérateur téléphone yi nga xamante ne daal di wuñu nag respecté lu jëm seen wàllu engagement mu nekk kon ab campagne boo xamante ne ñeeloon na lu jëm ci wàllu service qualité ah, ci couverture réseau mobile 2G 3G ak 4G ah, ci noonee nag la ñu waxee ni Sonatel dafa war a fay lu toll ci fukk ak juróom benn milliard lu nu mel nag liggéeykat ya di ko daal di ñaxtu tey xamle sax ni nag ñoom la leen gën a moo di ñu jubi élection ñu leen di laaji milliard dafay doon loo xamante ni dafay dal di tey xel dañ ci ànd ak Mamadou Lamine Badji mi nga xamante ni kenn la ci ñëw. nañu ndax ARTP dëgg-dëgg lu waroon a nekk liggéeyam mooy jàppale opérateurs yi ba réseau fu nekk mu am dafa am lu ñu yéem lool ARTP daal balaa muy liggante ndax sénégalais day am réseau wala amul réseau élection jege lii nag moom sanction bi dañ koo tegul fenn jaay dooleel rek mooy dafa teg loo xam ne ñëpp xam nañ ne mënta ne moom mooy dafa ne Sonatel parc ñoo xolo ko baax fa nga xam ne ay gaynde ki njaay àll ñoo fa nekk fexeel foofu réseau am fa waaw xanaa Sonatel suy def réseau kay dana ko def ci nit ñi nga xam ne soxla nañ ko. mu doon perte. waaw loolu benn loolu bi mu koy wax sax moom xam ne ne benn opérateur du ko def. te loolu li ci dooy waar sax moom mooy dafa am fonds boo xam ne Sonatel dugal na ci cent soixante dix neuf milliards. te fonds bi xam nga lu muy jëriñ moom mooy fépp fu Sonatel deful état bi yóbbu fa réseau waaw état bi nañu wax fan la boobu dugg. ñoom nag intersyndicalu liggéeykatu Sonatel yi ñu ngi rek daal di xamle ni dinañu dellu siwaat ci mbir mi niki suba ci euh, mardi bi ci ab dajek euh, taskatu xibaar yi ji li ñuy wax kon bu ñu dégloo tuuti day daal di nag euh, tey xel tuuti. ñoom ñaar ñëpp. Mhm. élément bi jiitu te commenté wuñ ko. ak bu mhm. mujj bii yëpp yaa xadi affaire yu njuut njaaj yu leexul la. Mhm. bu njëkk bi. mooy poste bi. faaw ñu wax ci. poste mu ne su koo bàyyi noonu mu jàll. ñaari directeur général lañ dàq bourse finance xam nga feeñoo mi ñu mujjee dàq moo feeñ. Mhm. Bassirou Wade lañ jëkk a dàq. Mhm. bi mu laalee dossier ba la ko Bibi Baldé dàq. feeñoo ñëw laalaat dossier bi Bibi Baldé dàqat ko Bibi Baldé moom Bibi Baldé moom lu tax kenn du laal dossier post bi nga xam ni ay njuuj njaaj la xaalis liquidité bu ñu leble ñu ñu koy lebal joxe garantie ay chèque yu ñu xamul chèque ya nu mu chegoo boo ko laalee mu dàq la. nguur gi di ko seetaan noonu noonu te ki mu dàq xam la ne ni xaalis bu bëri la ñu rawale moom la ñu sàcc mais loolu loolu na ci presse bi ñëpp jàpp di ko dénoncer sàcc gi ñu sàcc xaalisu Sénégal yi dafa ëpp loolu benn la bi ci des ci wàllu Sonatel man vraiment du ma ànd ak waa Sonatel à 100 pour cent parce que da ngeen génn xëy na ci dëkk bi xëy na nag ARTP am na ci part de responsabilité wala amu ko ci mais ñoom ñoo ñu jaay plus ñoo ñu jaay crédit ñoo ñuy dagg ay dalaton yu leen demandé wul ñoo ñuy dagg ay yu ñu leen demandé wul ñuy contrôler suñu ay appel ñun lool lañ ci soxla connexion appel ak puce bi ñuy jaay comprendre nga. Mhm. ak xëy na lu ñu am ci suñu ay crédit ñu bañ ko pirater ñu bañ ko tibb ñu bañ ko sàcc. Mhm. lañu ñu seq ak ARTP ñoom ñoo xam mais li ARTP wax dëgg la réseau Sonatel fii la yam Ndakaaru boo génnee da ngay souffrir man man man man samedi ci guddi pour mu am connexion damay yéeg sama kaw kër. te loolu du du datewul ren datewul daaw datewul daaw. problème bu yàgg la te Mass Ndiaye suñu correspondant bi nekk Linguère. Mhm. ñaata yoon la ñu envoyé ay correspondance yoo xam ne nee nañu boo bëggee woote. da yëg ci garab am réseau Mass Ndiaye yónnee nañu ko ay ay envoi ba taay mhm. mais loolu responsabilité kan la mhm. ARTP même bu yilifee nekkul ni moo lay jaay puce ARTP dafay contrôler léegi nag contrôler na jot na ay jàmbat ARTP ñoom bu ñu jotoon ay kalaamee askan wi du ñu agir comme noonu de mais